Ah. Khalifa on a l'impression ko bi ñu ko tëjee ba génn ko euh, euh, pouvoir am populaire am dafa dafa chuter. non kon yéen xamu leen Khalifa Sall Khalifa Sall ku ko xam même bi PS di nekk au sommet Khalifa Sall di la mos a comporté woo Khalifa du nit koo xam ne day wax wax bu bare parce que fii Sénégal euh, pour ñoom politicien bu bu am yëngu-yëngu rek mooy politicien boo xam ne chaque jour bu Macky Sall jëlee avion yi nga wax. bu defee leen nga loolu sànn c'est pas c'est pas c'est pas du Khalifa Sall Khalifa Sall waxam bëriwul mais nag dama ne. wax def see bokk. dama ne wax bu wax. bëri na ay analyses yu jàpp ne Khalifa comportement ñu baal ma si kàddu gi dafa xaw a yambare de trop par rapport ak euh, li politique laaj Sénégal. waaw léegi bu dee yambare fii dama ne naan l'histoire politique du Sénégal c'est le seul politicien boo xam parce que politicien tamit yambare tamit bu ñu ko teg ci làmmiñ rek. yambare nañ ko teg ci ku ñu jàpp tëj ci kaso bi dafa ne dans l'histoire politique du Sénégal c'est le seul politicien boo xam ne dugal nañ ko kaso ba tey kenn mënu la wax protocole Khalifa Sall bi ñu koy génnee ci kaso bi dañ ko expulsé loolu defe naa ne mook ak Barthélemy Dias ñoo ko bi def ne la génnal par force foofu la ñuy nattee politicien boo am courage courage du ñëw rek ngeen comme yéen ni ngeen def dëkk nit micro sama genre bi taxaw fëgg sa dënn déedéet Khalifa Sall c'est l'homme politique le constant de ces dix dernières années ndax Benno Bokk Yaakaar la bokkoon waroon fa mun a am lu nekk am ambition ñu tegal ko paaka nekko ko ambition bi danga nga koy teg ci suuf. muy ambition présidentielle. muy ambition présidentielle ñu wan ko ne. ambition bi du fa am. mais terewul acte yi mu war a poser yëpp. poser ne ko mu jaral ko mu dugg kaso. mu jaral ko mu ñàkk a meereem mu jaral ko mu mu mu mu perdre mandat député mais tey ba léegi ambition boobu ak ni yoonu Sénégal tëddee jàpp ñu ne même fii ba 2024 mun na ko atteindre aussi. waa ma ne loolu xalaatu nit yi rek mais dama la ko mais aussi ay ay ay texte la. Sénégal waa bu ñu la condamné aussi. texte yooyu c' est taillé sur mesure. amul benn texte parce que nit ki bu ñu la bu ñu la bu ñu la condamné c' est pas at vitam éternam condamnation boo defee yow tey boo ma tooñee. kon amnistie nga may wax. dama ne waxuma waxu amnistie. dama ne ah, mais mais moom nga ma mën a wax parce que xalifa buñ ko amnistie. ba léegi yëpp mi ngi mi ngi tegu si loosam aussi. ma ne xalifa du amnistie moo ko téye. dafa am benn porox ndoll bu gars yi dugal ci code électoral bi moo téye xalifa Sall moo téye Karim Wade. te loolu ñoom ñii ñoo ko def ñu xam nañ nu mu demee dama ne xalifa Sall laa la wax. amul benn homme politique bu ko gën a courage fii la ñëw nekk Benno Bokk Yaakaar. na ngeen fàttaliku. bi ñuy dem élection 2014. waa APR dañ ko woo à travers Mbaye Ndiaye ne ko boo bugaatee nekk maire da ngay ñëw APR wala doo ko nekk. effectivement loolu ngi koy fàttali. mu am courage wu defar listam. jàkkaarloo nguur gi duma leen. c'est le seul maire boo xam ne jàkkaarloo nag ñaari nguur parti au si ñaari élection yu bakkol duma leen ci ci fi nga xam ne mooy capitalu Sénégal. kooku tey nga mun a nga mun a bugg bugg ko traité de tapet kon lan mooy tapet lan mooy géré ak lan mooy tapet. no non ñun ñun fi ñuy waxee ci wàllu la ñuy wax. non ma ne comportement daal ñun lekk politique du làmb. dañuy dañuy dañuy gis ku mel ne par exemple Barthélemy Diaz Ousmane Sonko seen. loolu seen comportement par rapport ak nguur gi. Euh, dafa mel ne Khalifa dafa dafa dafa nooy. xam nga xam nga day maslaa. ma ne xam nga ne boo ñëwee fekk xalifa Khalifa bu jaar am cursus mu am yëpp. am expérience mu am nga koy méngaleeg benn Barthélemy Dias dans sa fougue de jeunesse ak Sonko dans sa fougue de jeunesse sa veut dire que comparaison boobu mënul nekk Khalifa Sall il a atteint l'âge l'âge de la sagesse si foofu lañ koy xaar. waaw d'accord léegi. Euh, au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi. mënuñu rafet mënuñu njortu ne élection législative wala euh, locale day jàll rek mu euh, Khalifa Sall candidat en 2024 Ousmane Sonko candidat en 2024 ak li tegu si kaw xalifa Sall en 2000 ak si wàllu justice euh, ndax bu continuer nii Khalifa Sall li mu doon bañ bay bàyyi ambition ngir jàppale nit di foofu lay mujj. dama ne digganteem dama ne euh, xew suba. yàlla rek ko xam. si coalition noonu dina yomb parce que politique dafa am réalité aussi. non réalité réalité politique laa lay wax. mooy que Khalifa Sall la réalité politique tey tey tey tey. Hmm. bu doon opportuniste. day xool ne man fii falawuma fi. faluwaanu ma fi naa dem xool sama intérêt bopp mais tey mi ngi joxe leçon à la classe politique tey mi ngi sonn si ay élection yoo xam ne leer na ko ne moom falu ci man wax naa ci moom xam nga lu ma wax mm. daf ma ne man judduwuma rek pour falu yéen da ngeen daan sonn pour ma falu bi yoon man maay sonn pour ngeen falu mais est-ce que du risque si carrière politique am dama ne Barthélémy Diaz contrôle la ville de Dakar Khalifa Sall bu boobaa sur le plan politique Barthélémy koy ëpp dayo aussi dama parce que loolu aussi nu waxul leen si non mais lu jara bàyyi xel la. dama ne loolu loolu loolu waxu jaxase la loolu. nit yee koy wax pour dina saxal xel yi Barthélemy Dias ku ko xam ne ku ko xam xam ne nit ku dëggu la biñ ko laajee dafa ne man en deux mille vingt quatre Khalifa Sall mooy sama candidat du dëgg. mais les vérités d'aujourd'hui en politique nekkul vérité suba de. waaw léegi nag loolu man nag dama bokkul si ñi nga xam ne. dañuy gént nettali seen gént nettali seen géntu morom. mais réalité politique monsieur Diouf. bul bañ ah, réalité politique bul bañ Barthélémy Dias maire de Dakar. dama ne. quand même risque la si Khalifa Ababacar Sall aussi dama ne dama ne. Khalifa bu ñu koy wax dooleem. du risque Dakar moo tax. du risque Khalifa bu ñuy wax dooleem Dakar moo tax. du risque xam nga lan la. sagam la bu leen jaawale sag ak risque. Khalifa Sall dina yor ndakaaru ñaari yoon. te bu leen fàtte ne Khalifa Sall avant lii di xew dafa ne moom du candidat. du dem pour am troisième mandat. bu góor góorloo ba pulaayam koo xam ne ci moom la jóge koo xam ne sonn na ci moom koo xam ne si njabootam la bokk nekk meeru Ndakaar loolu sagam la. d'accord mbokk yi may fàttali yéen